jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy topp ci Dakar live ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar mbégte saa su nekk jàkkaarlu ak yéen tey ma dalalaat suñu papa Khadim sàmb ñu fas yéene nag sekk waxtaan waaye tamit mbokk yi fàttali leen dinañ waxtaan waat ci làmb ji nga xamante ni moo fi weesu mu nekk diggante Lac de ak Siteu waaye xam ngeen ni ni ki bi ñu dëgmal ñu ngi waajal euh, li nga xamante ni moom mooy euh, làmb ji nar a dox ci diggante Modou Lo ak kooku nga xam ne moom moo di Boy Niang dama koy rek bàyyi mu nuyoo papa Khadim ñu ngi lay ziar bu baax a baax bàyyi la nga nuyu jërëjëf euh, Adja maa ngi sant yàlla sunu borom subhaanahu di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. di sant samay waajur di sant Sénégal yi ak sénégalais yi di tàllal yàlla sunu borom loxo di ko ñaan réew mii di Sénégal yàlla mi nga xam ni mooy borom jàmm yàlla na yàlla sunu borom dolli fi jàmm yàlla na defal jàmm ñi ko dëkkee di ñaan sunu boroom subhaanahu wa nawet bi nga xam ni noo ngi ci cat li te yàlla sunu boroom mi nga xam ni moo nu bind moom nu ko am nawet moo la ko may ren may nañu ko ba nu xam ne may nañu ko noo ngi tuubal yàlla sunu boroom di ko sant tey ñaan kull koo xam ni kii béykat nga nga génne ci àq yàlla ji la ca des nag la la ca war lépp nga jëf ko yàlla na ko sunu boroom taxawe ba nu man koo jëfee di nuyu kilifa diine yi di ci jiilal jiital sëriñ Muntaqa Basiiru ak sëriñ Babacar Si Mansour ak baay Basiiru Taal ak njabootu kër maam Seexu Omar Fuuti yu waaye sunu baay Maay Ñas ak Seex Tijaan Ñas bu maam Xalifa waaye njabootuk maam Amari Ngoor Ndaak Seck ak njabootuk Seydina Limaamu ak këri diine yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu taalibe yi di ñaan yàlla sunu borom taalibe yi yàlla nañ njekku ndigal di nuyu njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall di ci jiital Serigne Amdi Fall di nuyu nag père de la nation gardien de la constitution l'homme de 25 mars sans waa ji président Macky Sall mi ma tàqalikool bërki démb ci tournée bu rëy bi nga xam ni def nañu ko te mu jeexe Fatick di ko félicité ci jëmmam ji mu jël ak soxnaam ñoo xaat ko Sénégalais yi di leen sant di leen gërëm ci fukki at ak ñaar yi nga xam dañ koo fal ba pare gunge ko waaye amul benn sénégalais wala sénégalaise boo xam ni tey nekk nga ci réew mi yori bët di gis yori nopp di dégg di yor oto mbaa nga yor tànk di sàmm mbaa ngay béy mbaa ngay napp te gisoo jëfi président Macky Sall ci réew mi kon ñu ngi koy ndokkeel di ko féliciter solennellement moom ak gouvernement di félicité nag première dame ndax bu ko sunu borom dogalee li bëgg yàlla defal ko ko fi ak ñeenti weer dana def passation de service ak ki nga xam ni mooy le premier ministre Amadou Ba loolu la bëgg nun Benno Bokk Yaakaar di félicité nag l' ensemble mouvement lëngoo bi nga xam ni man may président bi ñu ànd ak man liggéey liggéey bu réy bi nga xam ni def nañu ko duma leen lim waaye maa ngi lim commune Dendeye Gouy Gui bi ma dëkk responsable ya fa nekk ci góor ak jigéen ak responsable yi nekk département Tivaouane ak Mbour ak dakaar rawatina ñi nekk Rosso Mauritanie ak ñi nga xam ni ñoo nekk fi nga xam ni mooy Dagana ak ñi nga xam ni ñoo nekk Richard Toll ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm nag ki nga xam ni kii mooy le docteur Cheikh Kanté ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk PSE te ñu ànd nag moom ci parrainage bi ba jébbale parrainage bi ki nga xam ni mooy président ak premier ministre di ñaan yàlla suñu borom. fam daan jaar yàlla na ko fa yàlla suñu borom jaarale. di nuyu sénégalais yépp nag ak sénégalais yi di nuyu nag suñu xarit ki nga xam ni kii mooy As Ndaw di ko félicité ci taxawaay bu bi nga xam ni taxaw na ko ci kanam rakkam Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamante ni président jëm seen Ndoukoumane ndax Ndoukoumane moom ku ñëw ku ne. boo bëggee sa dikk neex foog as lool la yàlla sunu borom ndaw sàndee ne ñu ngi koy félicité di ko ndokkeel di nuyu sunu xarit Ibrahima Khalil fa le maire de Kër Samba Kane moom itam di ko ndokkeel. am na solo waaw. jërëjëf Aïcha ñu door waxtaan wi euh, dooree ko nag làmb ji nga xamante ni génn nañ ci niki dimanche mu nekkoon diggante Lac de Guiers ak kooku nga xam ne moom mooy Siteu Lac de Guiers am na ci kawam ndaw yaakaar naa ni kàddu yooyu bokk na ci kàddu yi nga xam ne doon nga ko yëkkati laataa combat bi di tàmbali. waaw di féliciter rek euh, le ministre sport moom mi nga xam ni mooy personne moralu sportu Sénégal di féliciter Bira Sène di jël njaal moo xam ni mii maa ngi ko tibbee ci suma xol di jaale ki nga xam ni kii mooy Thierno Ka nga xam ni vingt 94 kere bi nga xamante ni bii vingt nome nañu le ci jamonoy président Abdou Diouf nommé nañu sunu mag Ousmane pay mu tànn xaritam docteur Alioune Sarr bis boobu la docteur Alioune Sarr tànn Thierno Ka mu nekk banque centrale mu dikk ànd ak moom liggéey ci làmb ji pendant vingt et quelques années yoo xam nii Thierno Ka bokk na ci ñu yoroon discipline lit sénégalaise avec frappe ak lutte libre mu génn àddina ñu ngi koy jaale di jël njaal mi di ko jébbal docteur Alioune Sarr mi nga xam ne xaritam la ñu màggandoo defandoo lépp di ñaan Thierno Ka yàlla na ko yàlla sunu borom xare àjjana di jaale sama xarit sama rakk koo xam ni suma doomi ndey la muy Abdou asis Guèye ki nga xam ni mooy sunu yaay ja soxna Mareem Touré meññ ko nekk ci jàmm gën jag saaw moom itam mu génn àddina ci àjjuma ji ginnaaw tisbaar ñoo ngi jax ñoo ngi jox sunu njaal njabootu soxna Mareema Touré góor ak jigéen di ko teg ci loxol Abdou Aziz waaye di wax Abdou Aziz ne ko noo ngi lay jaale soxna si di ko jaale sunu bopp waaye sunu njaal mi nga xam nag moom la ñuy jaale Serigne Maodo si Dabaax ak li xalif généralu Tidiane ak xalifa yi nekk Sénégal yépp ci loxol Abdou Aziz lañ koy teg di féliciter sunu doom bi nga xam ni mooy Mansour Ba bi tëgg làmb ji di féliciter ñaari mbër yi di féliciter Lac de Guiers di ko ndokkeel ci ndam lu rëy lii ko yàlla jox bër ki démb ndam li yàlla na ko jig waaye di féliciter nag sunu doom Siteu defet bi mu am yàlla na defit bi jikko te su amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam waaye nag la Abdourahmane Ndiaye waxan ni daanu mel ni yaa daan ni laa ma bu ni bàyyi bu naa baas baraag sa kër tabax sama kër mbar mu ko ci manit du ko def ni loo falan falang du ma tee ñëw loolu moo dal Siteu mhm. maa ngi koy félicité parce que man damay tëgg ay làmb mais bërki démb bi ma toogee xool Siteu xool stade bi li mu ko def dama sama xol dafa neex ndax man du xaalis bi soxlawuma xaalis ci stade man dama bëgg làmb bu ah, stade bu am harmonie mooy seral sama xol parce que man làmb defal na ma lépp ci àddina làmb defal na ma lu ne moo tax mbër moo xam ni da ngay entraîner ba am doole am condition dama lay yéene ndam mbër moo xam ni da ngay indi ay ay nit ci stade bi ñuy fees pour promoteur bi parce que promoteur bi xaalis bi neex na mais promoteur bi xam nga xanaa xamoo ne gàcce promoteur mooy tëgg làmb te làmb ji amuti nit waaw kon ñu ngi félicité sita di ko encouragé di ko wax ni xale la doole ji mu indi contre la de guerre ak sañ-sañ bi mu indi na ko yokk mm. bu ko yokkee roi de arènes sax man naa dugg ci loxoom. la <laughs> de guerre nag maa ngi koy félicité solennellement moom itam. moom la waaw parce que xam nga làmb du ñu fay ku dóor du ñu fay kuñ tàccoo. ku daan rek la ñuy moom champion bu mag la ndaanaan piir la Lac de jox na ma bërëg alaaji maam góor gi njaay jox na ma bërëg duudu bakka saar jox na ma bërëg caw mbaaw ndax dafa am assurance du dem te xamut fi muy dem du bëre te jàpput du dóor te jàpput lépp da koy calculer da koy calculer te it làmb ji ku ci nekk bëre polowaay nag ku daanu rus. d'accord waaw. Siteu ban erreur la def ci ci combat bi parce que ñoom ñaar seen làmb ji yàgg na euh, bëri nañu 10 minutes arbitre may leen ñu noppalu ñëwaat ban erreur la Siteu def ci combat bi. Siteu li ma koy jëkk a conseil mooy am na ay boroomi xam-xam yu mën a bëre il faut mu jàngiwaat bëre moom xale la moom li ma koy conseillé na jàngiwaat bëre ba xam su jàppee lu muy def xam suñ ko jàppee lu muy def bëre ci. Mhm. bëre da ngay jàng jàpp jàng rëcc ndax combat bi liggéey na ci liggéey bu rëy te bëre na xeex na attaqué na day dañ ko na jàngiwaat bëre ay kele jàng rëcc dafay jàng day jàng jàpp jàng rëcc jàng dóor jàng moytu dóor mm. surtout moytu dóor loolu waxoon naa ko ci émission bi ndax komba bi dóor nañ ko ci dóor yu metti yoo xam ne peut-être mënoon na koo baare te coup yooyu mënoon na ko bañ daal parce que Lac de dafay téye dóor a dóor. waaw boo xoolee contre euh, Eumeu Sène ak Tapha Tine Tapha Tine day kor dóor a dóor mais kenn mënut a imaginer Tapha Tine Lac de Guiers dana ko ko dina ko kaawoo. Euh, euh, Eumeu Sène dana kaawoo Tapha mais loolu il faut xale yi ñu xam ne parce que dóor nit mu gaañu taxut a mën a dóor dóor nit mu daanu taxut a mën a dóor dóor dañ koy jàng bëre dañu koy jàng su fekkee ni dañ koy donn doomi Birahim Ndiaye doon champion mbaa doomi Mbaye Guèye doon sampion mbaa doomi Mbiite Ndiaye wala doomi Papa Kane wala doomi Robert wala doomi Doudou Baka Sarr wala doomi caw Mbaaw dañ koy jàng Balla Gaye 2 dañoo jàngi bëri de dafa dem ci mbappat yi bëre ba dréppi su jàngutoon bëri du mën a bëri ndax Double Less am na ñuy mag Balla Gaye te dégguñu daal yi bëriwuñu. lu leer voilà. d'accord mbër bu ci mel ni Lac de ak pois bi mu ak ni mu yàggee ci làmb dajeeg mbër mu nekk mën naa wax ni poids lourd yëpp daje nañoo ak moom. mu dem di bëri ak ku mel ni Siteu mu ëpp ko fuuf ëpp ko expérience ci làmb ñenn ñi ne d'accord ñu ti ni mu amee victoire bi ndax dafa waroon a jàpp Siteu daan ko ndax yow bokk nga ci ñi nga xam ne philosophie boobu la ñu am. waaw philosophie bi ma am am na tuuti lu ma bokk ak ñooñu am lu ma bokkut ak ñoom ndax man damaa mën a bëree. lan nga bokk ak ñoom ak lan nga àndut ak ñoom. li ma bokkut ak ñoom ndaanaan bu toll ni Siteu ak li mu indi stade te stade dafay yokk jom dafay yokk gàllaaj xanaa xamoo ni indi mbooloo mu bari ci stade day dolli gàllaaj mbër dana war a daanu ci bés amateur yi dikk di ko supporter seen xol sedd ñu toj lañ ko defan ba pare indil ko ndam li jox ko ko hmm. amateur léeg-léeg mu nungu ndam jox ko ki mu faral ah. ndaanaan bu toll noonu Siteu et puis buñ yaakaar ne Lac de Guiers dafa ëpp Siteu doole ëppu ko doole su ko ëppan doole bi mu ko jàppee man ko yóbbu fenn xanaa xamoo ne Lac fu ko Siteu fu la la Siteu fu ko Lac de yóbbu ca saaku ya la Siteu yóbbu na fa Lac waaw ndax am na benn yu am na bu mu génnee saaku yi. waaw waaw. donc bu ñu li Siteu amul benn mbër bu nekk ci làmb ji bu këpp doole amul ko ëpp sañ-sañ man daal li ma koy ñaan xale la na jàngi dóor jàngi moytu dóor ba pare jàng bëre d'accord naa ci Lac de Guiers dañu ne boksoor la buñ la nee yow boxeur nga ngay bëre koo xam ni kii bu laawul du dóor bu ngeen léewtoo danga war a tas gardam dugg ci biir xeex ak moom wala ne damaa mën a xeex mm-hmm. parce que man vraiment comprendre wu ma mbëri parce que suñ ma nee tey Gris Bordeaux xanaa asaam nga tey ci làmb ji. Mm-hmm. Gris Bordeaux dàq xeex ci làmb ji tey ci senegal moom Gris. ma maa la wax loolu kenn du ma weddi ku mën a ku mën a parce que man dama def boxe def judo ba pare def bëre dama la ne booy kayri bii sama rakk ju baax ji ma di ko ñaanal yàlla na ruwaat dugg këram maa ko jëkk jox sëriñ ne ko takkal maag sëriñ kan ak booy kayri bu kayri mu mu tuddee boppam mais dama la ne soo xoolee raasu booy kayre mhm. raasu ëmm seen xeet boobu amatuñu ci làmb ji parce que dañoo tarbi yu bëre dañoo xam bu ñu la jàppee foo jëm xam boo jàppee xam foo jëm mhm. mais mbër moo songo ñaari poids lourds songoo te jël mëntaam moo tax ma ne Balla gay daal yi mooy dàllinkoor bi. ndeysaan waaw. su jàppee xam na fi mu jëm soo ko jàppee xam na fi mu jëm. Mm-hmm. neexul nag soo ko waxee ñu ne wooy daf ko faral mais dafa man. analyse ngay def dafa man man damay analyse samay doom a nekk ci làmb ji. ñoom ñëpp. mais ñaari ponkal yu jàppante kenn xamul foo jëm ba arbitre àtte mooy wane ne mënuñu rawatina ba ñu nengeñee parce que Lac de Guiers am na ngemb foo xamante ne am na fa ngemb ñëpp doon xaar palaat bu nga xamante ne mënoon na koo def Siteu mën koo daan parce que mbër soo ko ëppee doole dugal sa loxo ci dawantiiram da nga koy ñoo di taf ko ci sa bopp dóor ko juróom fukki ku bàyyi ko mu tëdd mhm. te Lac de Guiers tiim na Siteu tiim goo xam ne Tapha Tine am na combat boo xam ni maa ko gemb ah. mi ngi may dégg du ma weddi bàyyam du ma weddi maa nommé combat bi gemb ko dama ko ni kii di bëree yéen a tolloo taay mais bokku leen mu ne ah ma ne ko bala ngaa bëree na nga ràcc say tànk su ne bëxër ñett wàccal jox ko épaule mu teg ci poitrine am nga roof sa loxo ca giño ko ba mu dëgër puus ko ba mu sori nga jël sa bopp teg ko ci poitrine am génne sa loxo dóor ci po dóor ci flexis bi juróomi coup. Mm. boo bësee mu tëdd. ndax boobu day sonn. waaw. mais mbër boo ko doole soo ko téyee dafa war a feeñ maa ëpp doole wala maa dàq xeex loolu d'accorduma ci Lac de fi ma àndee ak moom d'accord mooy victoire noo ko amee baax na dañ waxante dëgg ñi ko gemb Lac de dafa ami bokk ami dëkkandoo am soxna ami doom di bëre dafa war a assurer bëreem nañ waxante dëgg Ama Baldé ku ne xam na ne ndaanaan la bu fekkee mu neex su bëree mu neex mais bari ki dem bi mu daanoo lu ne dégg na ko. <laughs> waaw te dafa te te li ko def mooy bëri te jàpput assuré wul bi muy bë bi muy boot. mboot mm-hmm. mi ñorul. assuré wul mboot da ngay jàpp bu fekkee dangay boote tànkum ndejoor mm-hmm. da ngay téye ci giñu sa loxol ndejoor même su fekkee da ngay téye sama xarit Momar Ndiaye wax na ko mboot kuy téye ci tukku jara mënoo ko mboot boo koy téye mm-hmm. fii ngay téye. baayam su ma saa di boot bu nee taral ci sa njëmb day aw sa përëg su la ma ngi too du la xoolaat day dem rek jëli bagage am ne mbàkkee bagage. da ngay jàll mbàkkee kaak da ngay tëdd mais mboot mi ñorul. tey ñi nga xam ne dañuy wax ni Lac amatul adversaire ci ci ci làmb ndax euh, saa su ne bu ñu ko yóbbee ci làmb yaakaar ni danañ fa jëlee bés bu rafet duñ ko am ndem am na ko nag ci Siteu làmb ji nga xamante ni la jóge tey ñi nga xam ne wax nañ ni Lac de Guiers amatul euh, place ci làmb ji non dañuy wax rek xamuñu li ñuy wax mm. la de rek am ci làmb ji place làmb ji amu ci ku ko cëpp place man maa la ko wax te di nga dégg léegi ne am na komba mm. xam nga benn lam du yëngu mbër mbër mi loo bari bari combat loo bari bari victoire foog nga am adversaire boo bëreel te Lac de Guiers adversaire u ñépp la man maa la ko wax te itam loolu il faut xam nga euh, man man nag waxuma far ah. xam-xam laay wax ak njariñu làmb Lac de kenn mënu ko génn ci làmb yi mënuma tudd tur mais am na mbër yoo xam ni nekk nañ fi tey gën a bari coow mosuñoo daan nit am na mbër yoo xam ni delloo nañu juróomi avance avance bu ñu la jox nga delloo ko ñu ngi fi tey di gën a rëy làmmiñ am na mbër yoo xam ni ñu ngi fi tey di coow daanuñu dix personne am na tey ay champion yu fi nekk ay ancien gloire ñoo ëpp la de guerre ay niil <laughs> yaa ngi wax lu doy waaw damaa fekke mboj moo tax ma xam ni dugub ji toll niil ci làmb la bokk njëlloo ci làmb la bokk bandoona ci làmb la bokk meredel aradel médecin ci làmb la bokk avertissement yii xew nag mhm. moo bokkul ci làmb moo yàq làmb ci avertissement yi nga xam ne ci lañ mën nga cee am benn avertissement nga am ci victoire du dëgg seen seen nañ defaraat làmb ji mhm. Bira suma rakk la suma xarit la maa ko jëkk dékk micro ci àddina Bira Sène maa ko jëkk wone ci télé ci àddina mi ngi may dégg nga xam ni may dàllinkóor jamonoy caxabal jamonoy caxabal boobu drapeau chef de l'état lañ defe Kaolack ba Bakke boobu mooy ministre urbanisme ker laa jëkk a teg Biraseen ci plateau mu nekk président CRC bu Kaolack waaye ci yaram ak tegginam ak xam-xamam ak bëgg sportam ak bëgg culture ci laa xam ne lu mu yàgg-yàgg mën naa doon dara ci sport mm, mm, vice président Maysa Ndiaye maa ko jëkk a waxloo ci rajo bi mu doonee promoteur maa ko doon nga xam ni bilaay bàjju bi maa naqare ma maa naqare weranteel ci làmb. <laughs> taxawalaat xoolaat tamit li nga ah, xam ah oui mais c'est non non non non d'accorduma ci man benn avertissement mhm. nga jox ci nit victoire xañ ci nit ndam d'accorduma ci c'est pas normal. d'accord lenn daal CNG d'accord naa ci lépp sauf avertissement yi bi ci des mooy nañu xool tànki mbëri ci saako yi mhm. dañu war. et waar bii ñu def rek xam nga euh, till bu amee almet àll bépp dafay takk waar bi am na lu combat yoo xam ni jërul wane waar mhm. combat tafaati nag ëma seen loo ci wuti waar déedéet tardel nit ñi ci biir stade bi ak wane ne waar am na mhm. mais waar ci combat diggante Lac de Guiers ak Siteu lañ war a dem waar xool waaw am na ci moment yoo xam ne man maa leen Dakar bi tëre CNC bu njëkk ba fekke naa bi ñu koy fal avant CNC di ñëw maa fi nekkoon maag sama mag Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla dolli wér di fay mbëri 300 ak 250 mille ak 150 mille di leen bëriloo may tox maay nommé combat yi di arbitrer man wax rajo du woon suma vocation ci làmb làmb dama ñëwoon dama ci bokk dama mën a bëre xam ko ba pare bi Gaston ñëwee 92 may nommé combat yi maay arbitrer waar dafa am lu jar ak lu jarul waar te bu fekkee dañu bëgg a topp waar bi arbitre di daw di fa arbitre di pourquoi bu jël amee ñuy daw ku ne daw songu sa morom. Ah. nañu kalm dal. am nañu calme dal bu jël amee ñaar ñetti arbitre am. Mhm. am na arbitre central am nga ñaari arbitre de tous. Mhm. bu jël amee mbër mi nga xam ni arbitre bi nga xam ni mooy arbitre de tous moo yor suuf léegi moom moo war a laal mbër yi. ñi ci des seen yoon nekkul ci mbër yi bu sit amee mu xam ni sit am na dafa war a souffler mbër yi bàyyante su gaañu gaañu amee mooy souffler teg ñaari mbër loxo ñu bàyyante mm-hmm. mais xel yi ñuy daw kenn ku ne daw songu kenn lu ñuy lu ñuy yàkkamti ci joxe verdict mm-hmm. jaru ko xanaa gaa yi toog trois heures ba neuf heures ci guddi xaar verdict du seen problème am na combat bu ma gis ñu dem waar joxe vi ñu joxe victoire ba pare dem waar dellu siwaat dindiwaat ko joxe waar combat boobu booy bi dañu ko ne daanu nga ba pare dellu siwaat jox ko wér diggam te arbitre bi daf ko jox victoire ci géew bi mooy ki këf tànk moroom ji rek dëj ko dem réalisateur yi aussi il faut être honnête parce que jël bu leer la ko daan dafa këf tànk bi dëj ko waaji toog mu jéggi ko jàll mais comme dañu ànd bi ko jéggee dañu ànd réalisateur yi retourné waat di wane foo xam ni di ko ralenti di ko téye euh, c'est pas normal ça dafay créer problème dafay créer problème il faut être il faut ñu sérieux mhm. ñi nekk ci média bi nañu sérier reporters yi aussi nañu sérieux mhm. journalistes yi sérieux arbitres yi sérieux CNC bi sérieux parce que mënuñu di ŋawti ŋawtee xanaa xamoo ne am na ji reporter yi li ñuy def moo lu yàqu ci làmb ji reporter yi léegi 60 pour cent ñoo ko yàq. ah, ah bien sûr yéen la. parce que yéen a ngi wax tout le temps ci li nga xam ni lii mooy supporters yi yéen a ngi leen di ŋàññi. Hmm. supporters yi def nañ lii fan sa club def na lii mais reporter dafa reem ci cadre reporter hmm. bu jël bu leer amee nga joxe verdict su amul nga xaar arbitre. mais dóor nañu diw duma nañu ko duma nañu ko doo ko wax. Mhm. sama mag Mansour mbay moo daa wax mook asab lay naar diw cokkaas na nit ki su ngeen dëkkee ci réew mi mu am jabar ami doom xëy na sax moo la gën mbaa mu gën la juddu gën laa mën a ragal yàlla gën laa jub te ngay dem këram mu di la may xaalis mais duma nañu diw. Mhm. dóor nañu diw. diwa ngay daw non non non. lu lay wax c'est important alors euh, bi lamb ji jeexee dégg nañ ku mel ni Siteu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko. wax ni Balla Gaye dafa yëkkati ay kàddu wax ni eh, dina ko may sens alors Kamba Balla ak ki nga xamante ni moom moo di Siteu quand même. mais Siteu benn mbër mënatu koo bañ. Ah <laughs> de ah amatul. amul benn mbër Balla Gaye mënta bañ Siteu Modou mënu koo bañ Bombardier mënu koo bañ Gris mënu koo bañ amul benn mbër buy takk ngemb bu nekk ci làmb ji bu mën a bañ Siteu amatul. Hmm. ku Lac de Guiers mooy adversaire potentiel ñooñu. bëri naa ak Siteu mu jeexe ci avertissement kon Siteu dégg na daal yi Lac de daan na Moustapha Guèye daan Yékini daan Tapha Tine ñoom bëreeg mbambulaan yépp ñooñu ñii da leen a dóor fab leen ñu jaaxaan ñii daf leen tungoom dóor ci suuf kii dañu dem bëri ba xaj tëdd génn ba tëdd ci ci avertissement la ko daane Balla Gaye kombaam ak Siteu komba bu mën a am la. Hmm. ndax Eumeu seen a ngi may sans Sa Thiès. waaw Fall daf ma waxoon ni ma làmb du ak maas dabante la ku ci yàgg ku la man fekk la ci waaw. Hmm. làmb du ak maas ku ci yàgg ku la fekk la ci. foog ñu may xel sans. Balla Gaye li mu wax yow ban jàngat nga ci am boo daanee diw ma may la ma may la sans. boo daan bu ku ma ko wax boo daanee Lac de Guiers ma may la sans kàddu yooyu yow ban jàngat nga ci. non loolu xëy na xam nga la moom dafa baax. mais loolu du argument yi boo daanee Lac de Guiers ba may la sens euh, du wax euh, avant combat bi la wax wala avant combat avant combat bi avant la ko wax bu ko nee boo daanee Lac de Guiers may la sens làmb ji Balla Gaye toog seetaan combat bi mhm. ñu xeex bëre jàppante sukkër bi caxabal wéele lalli guus guus guus ba ñu jeexee ci benn avertissement kon war na ko may sens. le fait que Balla Gaye dëkk Géejawaay euh, Lac de Guiers numéro 2 dëkk Géejawaay ndax rafet na tey ñu déggoon kàddu boobu ci Balla Gaye numéro 2. non non loolu du dara dafa doon loolu mooy wane assurance su Lac de Balla Gaye xamut lu bon Lac de Guiers xamut lu bon kenn mënu leen a jaxase ci àddina waaw journaliste yi ñooy dagg di couper ay waxi jàmbur di ko dagg mais Lac ak Balla gay man xam naa li ñu séq xam naa li seeni baay séq xam naa li seeni ndey séq ah. loolu du dara mooy boo ko daanee ma may la chance di won ne mënoo koo daan. Ah, ba ton boobu la waaw. li nga xam ne dox na seen diggante parce que dégg nañu ay ànd ndaw Lac ñu wax ni maanaam taxawaay bi Balla Gaye war a am ci combat wu Lac de amu ko ci gisuñu ko ci point de presse bi gisuñu ko ci làmb ji mu ñëw sollicité ko te aussi yëkkatiwul téléphone ba tey woo ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers loolu xamuñu ci dara waxuñu dëgg xamuñu woon a comme déet ndax Balla Gaye dëkkut ak journaliste yi dëkkut ak ay àndandoo dafa am loo xam ni fi ni àndandoo ngi tas àndandoo tas nañ sëy yi àndandoo yàq nañu yi àndandooy yàq nañu tariixa yi àndandooy yàq nañu diine ji àndandooy yàq nañu grand place bi àndandoo yàq nañu daara ji ma sàcc wax la moo yàq Sénégal Balla Gaye ak Lac de seen diggante dara mënu ci am lu ñaaw bu ñëwul ci combat bi rakkam ñëw na te ñoo bokk ndey ak baay te bu ñëwee ci ndigam lam la ñëw mais combat bu toll ni combat Lac de Guiers bi mu am ñoom ñaar di ay xarit di ay doomi ndey Balla dafa wóolu Lac de Guiers ni mu wóoloo Lac wóoloowu ko boppam mais bu Sa Thiès Balla Gaye ak Sa ñoo bokk ndey ak baay su Sa su Sa Thiès bu ñëwee ci combat wu Lac de Gaye ñëw na écurie Waalo yëpp ñëw nañu waaw parce que ñoom ñoo bokk lépp ndax écurie Waalo bii Lac nekk moo jur école de lutte Balla Gaye nit ñi nañu bàyyi weer ci benn pan écurie Balla Gaye écrit waalo bii Lac de Guiers jiite nekk tête de file bi te yàlla na ci yàgg ma di ko ñaanal moo jur école bii Balla Gaye dégge daal yi benn la ñoom ñaar benn benn écrit la du ñaari écrit waaw le fait ñu ne seen diggante neexatul dem non saytaane yee koy wax rek nañu ci génn seen diggante mosul naqari dara yàquwu ci comme li ma waxan ci seen tele bii laa noon Pikine diggante Eumeu seen booy Niang ak Ama Baldé kenn munu cee dugg saytaane gën a mën a dugg mais dara la ci saytaane munu. Mm-hmm. pour cent géejewaay bi nga xamante ni dañ ko doon wax quand même Père gis nañu ni mën nañ ne wàññeeku na parce que Lac de bi muy bëri gisuñu ku mel ni euh, guy gi mu ñëw. gisuñu ko mel ni Balla Gaye mu ñëw gisuñu yenn ci ay mbëru Géejawaay ñu ñëw teewal ko. lu tax ñu lu tax loolu seen seen nit ñi de lu leen jot. ñi bokkul écurie kenn ki suy bëri doo ñëw ci ci ci ci écurie dama bëgg ngeen gëstu ji wala ngeen arrêté seen seen yi wala ngeen yéen yiy wax ngeen arrêté wu parce que ngeen di dem gëstu ji maaf yi. mais li ngay wax ni xam nañ ko mais sénégalais yi nga xam ne dañuy wax laa bëgg a wax. sénégalais yi yéen ñii laaj lii di ma ko laaj di ko laaj sama moroom yéen a leen ko war a wax ne leen guy gi amul droit ñëw su am ama su Lac de Guiers di bëre bokkuñu écurie mais am na droit yéeg ci ci ci ci bi seetaan. est-ce que ku la ñëwul ci tribune bi seetaan bu ñëwee tribune rek dañ ko war a gis. lu léegi parce que ñëwul bu mu ñëw. mais mën na toog këram sax di ko jàppale. Mhm. bokkuñu écurie bu combat soog amee ku la dafa reem sa écurie est-ce que Lac de bu guy giy bëree dafay ñëw tax taxaw ci ginnaawam lu tax du ngeen laaj loolu ba pare door wax leen loolu sénégalais yi ba pare mm. wax leen ne leen su Lac de Guiers di su guy giy bëree Lac de du fa ñëw Balla Gaye du fa ñëw mm-hmm. bokkuñu écrit cent pour cent mooy ngeen bokk ndey bokk baay bu jàmm amee ngeen daje bu leneen amee ngeen daje yëkkati seen teraanga di deflante mais dafa ci am kenn ku ne foo war a ci combat bi loolu moo normal dafa am ay règlement yoo dafa am ay règlement CNC teg ko Balla gay bokk ak guy gi Balla gay bokk ak Sa Thiès ndey ak baay Balla Gaye di bëre Sa Thiès mënta ñëw Sa Thiès di bëre Balla gay mënta ñëw il faut que nit ñi indiwaat seen xel yi mhm. tey xalaat luy defar te bañ di xalaat luy yàq wala xalaat luy soosale ay xol am na solo ngir ñoom ñu nekkaat ci jàmm Père Khadim boo amoon message boo leen di la ñu ngi ci jàmm nekk ñu ngi ci jàmm maa fii <laughs> nekkat laay bañ a dégg <laughs> ñu ngi ci jàmm ñoom ñëpp tey boo amoon message boo leen di lancer lan lay doon muy Lac de Guiers muy Balla Gaye. Lac de Guiers 2 mm-hmm. ak Balla Gaye samay doom lañu. Mm-hmm. man xam naa ni seen diggante dara amu ci. bu ñu may seytaane fu jaar. Mm-hmm. ndax duuba lees moo jur du moo jur Balla Gaye moo jur Lac de baayam moo jur Balla Gaye moo jur Sa bu ñu may benn seytaane bu ñu may benn coggu bu ñu may benn seytaane bu ñu may benn coggu. mu jaar seen diggante ñoom ak bokk lañu am la de Guiers 2 Ama Baldé Balla Gaye 2 ñii dañu am ak bokk goo xam ni bokkewuñu ko ndakaaru ba ñu koy bokk amuñu fan si club amuñu supporter ndax Fodé Doussouba moo fi jëkkoon li leen fi indi danaa leen ko tasal bés bu ngeen amee jot bu jëkk dañ daan ñëw di déqi ñu di leen fay ñuy bëre Fodé moo fi indi Falaye balde indi fi Barabara ñoom indi fi ay temps Bala Baldé ñoom ñooñu ñëpp booba suñu bàyyi Émile Badiane mi ñu tuddee stade Émile mi ngi fi ndax pare bu village ba nga jógee sa village natal ba nga jóge ka nekkan ca gouvernement daf leen doon fat à noonu la duub duuba lees ñëwee jaar Gàmbi continuer wàcc si wàkk ngunu continuer ñëw ba ñëw fekk si Falaye Baldé ñu àndandoo mu rafet séréer si noonu lañuy ñuy dikkee waalo waalo yi noonu la ñu dikkee écurie Fass noonu la dikkee écurie Pikine noonu la dikkee ndax écurie Fass fi aman ak écurie Pikine écurie Pikine buñ koy wax Baye Falaye Baldé tax ak Pape Diop Baston ma di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli wér écurie Fass bu ñu koy wax faala tax ak ñoom faga 1 ak faga 2 parce que Baye Maam Góor gi Njaay bu njëkk nekkutoon écurie Fass daawu fa gemboo ma nga daa gemboo ca déem ci kër ndeyam la daa gemboo moom Baye Alaaji Maam Góor gi Njaay mii góor gi gom ndooy mi jur maître Doudou Ndoye avocat ministre de la justice moo doon menacé am à l'époque ak Modou Njaay baayam donc noonu la demee mm-hmm. séréer si daawuñu bari ci seen biir seytaane seytaane sii nag di seytaane sa jaaran diggante Robert ak Doudou Baka Sarr seytaane sa jaaran diggante dut Baka ak Moussa Diame ba ñu bëre seytaane sa jaaran diggante Robert ak Moussa Diame ba ñu bëre moo nekk ba tey mooy dox seytaane yàgg na fi nit lay doon day sañse sol mbaxana yor oto di añ di reer kàddu am na solo alors ñu ñëw ci làmb ji nga xam ne moo nar a dox ci diggante Eumeu seen ak Sa ndax nag euh, bokk na ci làmb ji nga xamante ni yaakaar naa ne jamono ji askan waa ngi koy xaar te ngi koy waxtaanee euh, père grand contre petit nañ ni jamono ji bari na gis nañ ko ci diggante Modou Lo Ama gis nañ ko ci diggante Siteu ak ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers mu a ñëwaat ci diggante Eumeu Sène ak kooku nga xam ne moo di Sa loolu dama bëgg yéen journaliste yi di reporter làmb di ci wax ngeen jàngiwaat sport jàng culture Sa Thiès li mu def mooy furli furli dafa amoon bu jëkk bu jëkk su champion duggee ci écurie daan tête de ba day jeexal écurie ba waaye feek daanu duñu ko bàyyi mbaa mbaa mu jeexal leen Balla Eumeu dafa daan Balla Gaye ñaari yoon Sa Thiès dem ba dégg daal yi dafa war a furli Moustapha Guèye moo furli leen mbay Guèye la Tigre de Fass kere ba ko Mouhamed Ali daane fii ci stade Iba Mar Diop Tapha dafa jooy ñibbi furil dóor Ali mu daan loolu mooy furli amul grand contre petit petit amatu fi ñoom ñëpp génération lañu koo magee ñaari ak ñetti at ay moroom génn ay tofa lañu Sa Thiès li mu def dafa furli ama seen nag maa ngi koy félicité te di ko wax ni ama sama 10 mille francs yi jig na la. indil ma àllarba maa ngi lay féliciter ndax li ma la wax mooy daanu na waaye mel na ni moo daan ndax daanu eggagoo sa kër ñu jox la combat bu toll ni si digganteeg Sa Thiès loolu mooy wone ne wone nga njàmbaar wane nga fit ba pare mu tàkkoor nungoo bëri ak xale yi lii moo amoon lii la alaaji maam góor gi def bëri naa ak Balla Gaye Mbaye Guèye la Tigre de def na ko Manga 2 def na ko na fa def na ko Balla gay 1 def na ko Alioune Seye def na ko Papa Kan yi def na ko Tubaabu Joor def na ko ni def na ko bu ma doon Amboura Sarr def na ko docteur fay def na ko ñoom Pape Diop ñëpp def nañ ko kenn ku ci nekk bëri nga ak sa génération ba mu jeex nga may say rakk sens. ndax gisoo ni du risque Sa Thiès bëri ak Eumeu Sène mi nga xam ne moo daan Balla Gaye numéro de ñaari yoon. non non du risque ci moom Balla Gaye bu mënta daan Eumeu euh, Sa Thiès mënta daan Eumeu Sène bu yóbboo mu tekki ngembam. waaw. combat de revanche. revanche fourni la tudd mooy daan nga sama mag ñaari yoon duma la bàyyi nga dem te daanuma hmm, combat bu nar a njëkk. bàyyi Thérèse Ndir tuddul Thérèse Ndir màggat Ndir la tudd. nee na ma dama daa taxaw ci ci langue gi daan fukki nit ak ñett ñu ne ñu ne màggat Ndir daan na treize personnes loolu moo indi turu treize ñun. bi ñuy bëre sunu dëkk maa ngi nuyu sunu maire Pape Abdoulaye Salaan di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli wér di nuyu commune Dendey Guy gi yépp noo ngi dëgmal incha allah sunu siyaar bu mag bi nga xam ni siyaar bu ñuy def ci Dendey te xalifab sëñ Mandoumbe Mbàkke di sëriñ Ibra Xujja Mbàkke ànd ak sëñ Seex Bintu rakkam ak sëriñ Koso ak seeni rakk ñoom ñëpp. ak commune bi ak senegaal gépp ak njabootuk maam Serigne Touba goog maam Cheikh Ibrahima Fall foofu lañ koy defee dafa am benn mbër bu ñu wax ilimaan ma nga dëkkan Daaru Naim ci ginnaaw Daaru Naim la dëkk booba man maa nga fa di bëre ngañ nogoy Pape Abdoulaye Salaan Ali Mbeng Euh, Njaga Jóob defe naa sunu dëkk ak ku ñuy wax njóogu Ñang ilimaan jóge ilimaan toj lam bi doyool yi transit fa rek fekk ñu tëgg mbappat mi rek ilimaan dikk tàllal loxo fi taxaw lañu daan nun ñépp ba nu jeex ñu guddi gi ñu jóg ne ko taxawal ñu dem yeeyi sunu benn xarit bu ñu wax njóogu ñang mooy yaakaar ba laa ilaha illallah noonu daf nu daan dem ni suba dinaa dellusiwaat ñu ne ko ba suba ñu dem yeey njoogu ñan non non non non daf nu daan ci guddi gi ñu dem yeey kàbbu cooy yal na ko yàlla xare àjjana ñu ñu fëgg ko mu jóg ci ci ginnaaw soxnaam ñu ne ko benn waay bu ñu wax ilimaan daan nañu ba nu jeex fi mu ni dëkk bi fekk na boobu dëkk baa ngi génn kenn noo ngi doon bëree ci Dakar ak maam may rowayel six personnes wala sept ilimaan daanu ci lenn ngem ñu yee kàbb kàbb na jabar ji génneel ma séer jabar ji génneel ko séer mu dongali nu yow nu ànd ak moom te ko duma dënd yi mu ne ana ilimaan ñu ni mi ngi nii ñu ñëw arbit bi soufflé ilimaan ni bëxër ñett kàbb cooy téye ci mbagg yi dóor ko njiit mu ànd xalangu ci biir nit ñi kàbb ànd ak moom génn dem hmm. loolu mooy furli ca ëllëg sa ilimaan ñaan rawaas dellu si waat ñu jëli njóogu njóogu jaarale ko fa mu jaarale wan kàbb fa fa fa fa ko kàbb jaarale wan la ko jaarale loolu bu njëkk moo aman soo duggee ci écrit daan fañ kenn nit danga leen di jeexal mais doole euh, euh, koo daan ki ci des ne la doo am foog revanche am loolu moo aman donc euh, combat bu neex la Eumeu Sène maa ngi koy félicité di félicité Sa Thiès. alors euh, diggante euh, Modou Lo ak Boy Niang le premier janvier boobu tamit làmb la boo xam ni. waaw yaakaar naa ni yàkkamti nga cee wax. waaw komba bu neex la. Mhm. ñuy sama ñaari doom. ma di leen ñaanal yàlla di ñaanal promoteur bi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla def fi jàmm bañ àgg ci ak jàmm. waaye. moo du doon dugg Pikine. combat combat calcul bu rëy rëy euh, ñaari ñaari ñaari technicien lañu. Ah. ñaari technicien lañu. Mm. parce que Boy Niang mi ngi door a am phénomène mm. ci carrière am yëpp mais Modou Lo mi ngi door a am phénomène ci carrière am yëpp. kuy liir bëre ku dul sa ku dul ku dul wanteer bëre bu dee dóor dana xam ni dafa war a dóor bu dee song dafa war a dafa xam war a xam ni dafa song mooy Boy Niang Boy ñan ak Lac de ay technicien lañu ay statisticien lañu ci bëre. te combat boobu combat royal la. waaw combat royal la. combat bu riche la bu neex. waaw komba bu neex la yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm vraiment. boobu moom buñ ci yàlla yóbboo jàmm combat la boo xam ni bii danaa ci am lu ma wax nag. waaye ca kanam laa koy wax. mais ndax du danger ci booy Niang ndax euh, mun naa wax ni Pikine jamono ji ñu ngi fanaanoo ak ñaari défaite mu di euh, ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé ak euh, ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène moom mu war a jël défense bi te bul fàtte ni Modou Lo moo daan Ama moom mu war a bëri ak moom combat royal. mais dafa furli. ba tey bu njëkk. sama yaay Mbana jóob daf doon wax nii buy woy korndaama dafay wax ni euh, ndeysaan euh, rawaan mbayante booy bu woy aj batu mbay sama jigéen bi dafay wax ne koo ci mas a jam moroom mi daf ne doo dem ci jamoo ma boo fetalee kenn ci ci ci ci ci ci ci ci ci kër ndeyam mu ñu daanu daf la wax ne la bala ngaa dem fetal ma koo ci jam jam moroom ma koo jam daf lay wax ne doo doo dem te jamoo ko loolu dafa amoon démb euh, Modou Lo bu duggee Pikine daan Eumeu Sène ñaari yoon daan Ama Baldé Boy Niang nekk fa mu murtu nungu Modou Lo tëgg góor mokku leen euh, Mbaye Guèye la Tigre de Fass yàlla na ko yàlla dolli leer Robert Diouf Mohamed Ndiaye sunu mag yàlla na ko yàlla dool leer dafa bëreeg maam góor gi daan ko mbay Guèye dëkk ko ñu ni ah Mbaye Guèye day fontu rek te boobu Robert dégg na daal bu doon ak bu doon bu sikket ma ni jaxaluur na le 2 février 69 la ko Mbaye Guèye dóor mu daanu fi ramas amoon na fi bi fit amee jom am ngor am loo war Lo warta dugg Pikine te Pikine jeexut kenn bàyyi waru faa bàyyi kenn te Pikine jeexut loolu la Boy Niang def lu normal la li Boy Niang def lu normal la lu ma d'accord te loolu njàmbaar dana ci feeñ. ngar mi dana ci feeñ. bëri dana ci feeñ. bëri dana ci feeñ. waay bu gënee jege dinañ ci gën a yaatal. incha euh, ngir ñu tàggatoo. Euh, am na jamono ci ginnaaw ñëwoon nañ fi nga defoon témoignage bu am solo ci kooku nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye waxoon ci moom bañaana bañaanaloon ko ngir yàlla teggi nattu bi nga xam ne teg na ko euh, jamono ji moom la ñuy wutal li nga xam ne moom moo di ci papa non man na culture dootuma ci boole politique vraiment culture duma ci boole politique man daal vraiment euh, la ma la waxoon ci boor boobu duma ci wax man Amadou Ba mooy sama candidat euh, ma ne naa ko ba pare maa ngi xaar yàlla sunu boroom ñu dem ci urne yi ñu fal ko élire ko premier tour bu ànd dogal yàlla li may ñaan sunu borom daal passation de service bi nga xam ni fii ak téeméeri at histoire dana ko bind mooy le président Macky Sall ak le premier ministre Amadou Ba waaw. c'est important. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant Dakar Live mhm. euh, di wax ni wax naa leen ba tàyyi ni leen <laughs> da ngeen di dem ngeen gëstu ji. dafa am loo xam ni il faut sport culture la sport culture bi moo ëpp compétition bi ndax 9 heures spo culture bi commencé ba 10 heures ci guddi wala 9 heures demi ci guddi sport door a am ñi daggoon seen billet 100000 francs ak mille bërki démb ci Lac de Guiers. ak Siteu bu ñu amutoon culture dañuy désolé mbaa ñu regretté moo tax il faut que ñu indiwaat culture ci làmb ji euh, promoteurs yi aussi ñu sensé ndax lii ñuy def moo fi amoon depuis 30 ans 92 ba léegi lee fi am il faut que promoteurs yi ñëw ma jox leen ma di ma jaay leen euh, ma jaay leen euh, scénario yi ma yor ci façon signature contrat parce que soo xoolee mënatuñu am sponsor mooy amuñu li fi amoon doo nga fi xew. maanaam culture bi culture bi xew ñaari mbër taxaw nga yor micro naa diw noo koy def diw noo koy def loolu fi am. te promoteur bi saraxula la xaalisam xanaa xamoon ne promoteur sponsor bi mbër mi intéressé wu ko promoteur bi intéressé wu ko xam nga kan moo kan moo intéressé sponsor bi kan nekk fongal leen bi di seetaan làmb ji mbaa mu di ko déglu. ka yor 100 francs war a jënd meew wala mu yor 100 francs war a jënd beurre wala mu yor 100 francs war a jënd crédit wala mu yor cent francs war a jënd KPE comprendre nga. wala mu yor mille francs war a jënd jolof chicken kooku moo intéressé sponsor bi mais sponsor bi mbër mi intéressé wu ko au contraire défaillance yi am dëgg te sponsor bi di ko moytu mbër mee koy def mbaa ñu mu àndal. loolu nag promoteurs yi parce que defuñu marketing defuñu marketing man xoolal. man su ma defee su ma tëggee làmb damay am sponsor mais xam nga man signature contrat yi duma ko def man. duma ko def nañ delluwaat ci 2STV xool signature contrat yi ma doon def xool làmb yi ma doon def. mais bu fekkee sponsor dafay jël tey cinquante million jox la nga jël 3 millions wala deux millions génne ko c'est pas normal il faut ñuy tirer 4000 tu sais tirer ko sponsor bi. tiire 4000 casquettes tiireel ko sponsor bi defal ko ay blouson t-shirt yi wër jigéen ñi di ko sol xale yi di ko sol di dem marché ñuy sol casquettes yi nit ñi di xam ne matière bi matière bu am solo la moo defoon ci làmb ñu bëgg làmb di ko def mais li def dafa yomb jërëjëf papa ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal mbégte la woon feggoog yow jotaay tàggul sant gërëm rek ñi nga xam ne saa su ne dañ lay topp di xaar ci Dakar Live waaw di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Dakar Live nag di balu àq ñëpp ci làmb ji ah. li ma doon wax itam muy mbër di félicité supporters yi amateur làmb yi maa ngi leen di félicité solennellement di félicité fans club yi di parce que vraiment dimas dama kontaan dama xool arène national bëgg kon maa ngi félicité supporters yi di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yombalal billet buy ñëwee di seetaan di balu ak kullu mbër famille làmb yépp léegi waxuma parce que bëggatuma feeñ télé bëggatuma wax ci rajo yéen ñi may invité da ngeen may saraxu ba sonn ma door a wax mais li may wax dafa amal dama jàpp ni war naa amal njariñ ak lu làmb moo tax ma di ko def loolu moo tax lépp lu ma ci wax ñi nekk ci làmb nañ jàpp ne bëgg làmb tax a wax bëgg mu dox a tax CNG bi na xoolaat parce que ay ponkalu seen yaram tàng ñuy bëre kurpeñ yi tàkk li yóbbu nit ardo mën na ko génne saako yi dawul dafay moytu arbitre yi arbitré Siteu ak Tafa ak euh, Lac de Guiers nañu delloo si waat waar xool et puis xam nga nit ñi dagg billet cinquante mille cent mille francs toog stade ba neuf heures ci guddi benn avertissement nga jox nga qualifié ci mbër kooku. c'est important. jaaduwul maa ngi balu ñëpp àq di bal ñëpp àq. di ñaan yàlla sunu boroom def ci réew mi jàmm. di ñaan yàlla sunu borom ñi tawat yàlla na yàlla sunu borom wéral leen ñi nekk ci prison yi. ku fa ndogal yóbbu wala nattu yàlla na yàlla sunu borom génn la nga dellu ci sa njaboot noo ngi ñaanal yàlla sunu boroom di ko tuubal di ko yalwaan moom yàlla sunu boroom ñi nga xam ni dañoo nekk ci lali hôpital yi yàlla na yàlla wéral leen ba ñu delluwaat seeni kër ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm di ñaanal pouvoir di ñaanal opposition ndax damay wax toujours ni opposition bu amul pouvoir kenn du xam lu mu jëf mais bu pouvoir amul opposition kenn du xam lu mu jëf kon pouvoir ak opposition ñoo mas di ànd léeg-léeg ñu réeroo waaye léeg-léeg ñu ànd pour defar seen réew maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf merci